sama yaay jee sama yaay ji gisuma ku ma lay mën a weccee yow mi yaay booy sama gaal gisuma ku ma lay mën a weccee yow mi yaay booy sama gaal maam Ramata Gaye laa tudd fii laa dëkk Pikine tali bu mag ah dañ ciy kontaan rek ndax lii mooy mooy ndimbal njaboot wax dëgg yàlla ndax man moom bii moom moom mooy ñeem fois may ñëw di jël si dëgg yàlla aw ma benn lu ma soxla damay ñëw jox ñu jël ñu jox ma ma dem liggéey ñëw verser normal amuñu benn problème ñoom ñoom booy liggéey verser normal dañ lay jox wax dëgg yàlla moom tamit ñu ngi koy ñaanal lii mi ñuy defal yàlla na ko yàlla ibbil buntu xéewal yi gën a bëree bëri si bàkki naa Mouhamed yàlla defal ko jàmm ñu ngi koy ñaanal lii moom ñëpp jigéen ñëpp ci kontaan moom même góor ñee jigéen ñëpp moom macha allah wax yàlla. dañ koy ñaanal liñ koy ñaan mooy li ma waxaat léegi dañ koy ñaanal gudd fan ndax lii mooy ndimbal njaboot. parce que mënoon naa dem jël xaalisam dugal ko si puukere yi comme nit ñi ni ñu koy def waaye def ko dafa jël dem jënd ay bagages di ko jigéen ñi pour ñu dem liggéey loolu mooy nit ñi kon bëgg na ñi famille yëpp dem liggéey ci lii mooy lii daal ku gis si moom di nga roy si moom man moom wax dëgg yàlla damay roy si moom ndax lii moom moom macha allah man maa ngi fi doo gis moom ba ma dee maam Ramata Gueye ba tey maa ngi ko fi doo gis ma koy ñaanal mu gën a nag yàlla bu ñu am rëccu si moom yàlla nañu continuer di liggéey ak moom mu ñu jox ay këri këri këri loolu rek lañ bëgg moom waaw macha allah kontaan nañ ñun tamit merci. bilaa tudd maa ngi dëkk fii Lansar fa laa fii laa dëkk franchement baax na trop initiative bu baax la ndax lii mi ngi dimbali jigéen ñi mi ngi dimbali njaboot gi. tey jii ku ci jël dépense am nga indi sa versement nga am sa ravitaillement xam nga loolu tamit avantage la ci jigéen franchement mënuñu koo fay xanaa di ko remercier rek. ah xanaa ñu ñëw rek ànd ak euh, soxna seet borom këram rek liggéey parce que lii ku koy def maanaam ku lay may ndékki añ bu la diggee reer war nga koo gëm man de franchement fii laa fii laa dëkk mais fële laay ñibbi chaque jour saf baax. mais initiative bu rafet la man gëw ko woon sax Fama Gueye nag topp ma ne ma nañ dem yóbbu ma ne ko ah nit ñi dañ politiciens yi nii la ñuy def rek mais tey dañ ma woo ne ma kaay jël si sa ravitaillement franchement bett nañ ma initiative bu baax la lii daal ci kaw ci kanam rek ba pare tamit yeneen leader yëpp war nañ jël ci kii référence parce que ñi ngi jàppale askan bi di jàppale ndaw yi yàgg naa joxe verse am xaalis ñu naan di dinañ leen jox lii dinañ leen jox li te musul am mais bi moom wax dëgg yàlla du ay naxe mi ngi nii kenn du gis tungu ne tungu ne du teew ñuy nataal loolu daal laa am lu ma ci wax di ko naan merci moo Gueye merci soxnaam si tamit yal na ko yàlla defal li mu bëgg yëpp jërëjëf. man la Salimata Ndoye dëkk Pikine Tali bu mag ñu koy sant yàlla rek ndax it dafa def ndimbalu jaboot ndax fi mu nii soo demee si banque yi dañu naan suba ëllëg ñett ba nga fa nag moom léegi léegi la amul xaar mu ñëw amul naxaate amul lenn lépp si dëgg la ko teg waaw ñoo ngi koy ñaanal bu baax li gën a avancé si barke Seydina Muhammad ndax jigéen ñu baree bari ñu ngi bëgg a liggéey waaye amuñu moyen bi waaye boo gisee ku la jox ne la liggéeyal di wees sa ndànk-ndànk sant yàlla rek ak di ko gërëm la de def ñun daal niñ ko gisee gërëm ko rek ndax amuñu fayam politique politique wu ñu defloo wu ñu dara sonn lii dafa leer naa nañ boo ñëwee déposé kayit këyit balaa am vingt dix jours mu jox la nga dem liggéey ji politique wu dara santuñu dara ñun kay ñun ñooy neex ñu jaar suñu yoon yabuñu si kàttam ñu kërën kërën ba sonn waaw ñaq liggéey dong la ñu xam ñun jigéen ñoo dong la xam waaye nag bu ñu gisee ku ñu dimbale te yàlla kese tax dem leen loo am ngir di ñëw di westa si di liggéey loolu ñoom mënuñu koo fay dañ koy bàyyi yàlla ak yonent bi Seydina Mohamed yàlla na ko yàlla fay waaw papa jërëjëf merci jërëjëf man jot Camara laa tudd maa ngi dëkk Tali Gunaas ah ñun daal dañ koy rafetlu daal wax dëgg yàlla ndax dip biñ ma ko waxee moom ma ñëw fi moom gëneel rek laa ci gis te wax dëgg yàlla rafetlu nañ ko torop waa ndax loo xamante nii moom dañ lay jox benn somme bu bari nga koy verser par jour xam nga loolu moom wax dëgg yàlla ngëneel la moom ngëneel la moom wax dëgg yàlla incha allah dinaa leen tettal ñoom ñëpp ba ñu mën ñëw parce que man dama am groupement parce que loolu laa koy wax léegi sax dinaa fexe ba sama waa groupement yëpp ñëw adhéré wu fii incha allah